waaye bu fekkee dafa bëgg a jël beneen nit euh, une autre personne à son choix ñoom dañuy daal di contre loolu Mouhamed. ñoom président Macky daal la président Macky Sall waaw mais bu fekkee dafa bëgg a jël beneen nit teg ko ci présidence ñoom du ñu loolu ba tax na ñu ngi amal ay réunion en secret ci ay Almadies centre ville. bu askan wi plan Macky wi bañee lu ñuy def kon. bu askan wi bañee lan. président Macky toogaat fi troisième mandat. ah dañ koy def ni maam Wade rek. soulèvement populaire. ni même Wade lañ koy def rek. ah boo nag ci lañ jëm. parce que troisième mandat moom wuñ ko signé ko ak. mi ngi xeeñ de en ñu daal di dem ca Pikine naka ak tiis la benn daam bu doon wuyu ci turu Ndioba sekk tolloon ci vingt ans moom nag la ñu daal di jamati lu toll ci 64 coups daal di koy sandi ci diggante ay cantine te loolu tey la fa xew mu Mouhamed. Hmm. daal violence mois de janvier bi. jaaxal na ma metti na torop 64 bu dafa sax bari nag. dafa bëri jigéen nga tiim jigéen di ko jam ba muy di compter ba muy 64 fois. bëri na. c'est trop ah la hmm? parce que micro bi ah. ngay jël micro bi. man est-ce que daa compter. waaw ah, mais même bu compter wul. Mhm. Euh, bu ñu demee hôpital ñoom mën nañ ko compter. Mhm. xam naa rek. da koy jam di compter. ah compter wul daal bi muy jam. Ah, maanaam dafa enchaîner. xam naa kon dafa wéerul rek. ah peut-être loolu lépp ngi ci waaye nag euh, am nañu ay réaction Sénégal yi nee nañ bu ñu doon def ku rey ñu rey maanaam charia du loolu la charia wax. Hmm. Hmm? Hmm? kon da yaakaar naa lu dina fi dakk sénégal yi ñoom loolu la ñu wax. ayca ba ci kanamee tuuti xam naa ni euh, Fall Ndiaga moom pare na ci dossier boo xam ne ni. Mhm. Euh, yooyu yëpp xam naa ni dañ ko waxtaanee ci kanam tuuti ci mars bi ah. ci mars ayca bu ñu jógee ci Pikine. bu ñu jógee Pikine Mouhamed dañuy dem ba Linguère mu nekkaat beneen nakar ak tiis ab taalibe bu tolloon ci fukki at ak benn la maître coranique am moom it daal di dóor ba mu ñàkk bakkanam Mouhamed mu nekkaat beneen fee bu métti métti bi ñu defee autopsie nag la autopsie bi daal di révélé mort par traumatisme crânien Mouhamed mu nekk lu métti moom nag maître coranique bi yoon daal dina koy teg loxo. ah kii bu mu génnati de. non mais c'est compliqué. ah c'est compliqué trop compliqué même. ray chaque jour genre bu ñëwee foog ci réseaux sociaux yi ñu waxtaanee. dëkk bee métti rek rek. Ah? et puis loolu mosuñu ko woon gis Sénégal. wallaay bu ñu rayul rek ñu xam nga ko rek loolu laa doon laaj euh, oustaz bi fi toogoon oustaz la xaw ma sëriñ mooy lu écrivain écrivain bi ma koy laaj ndax population bi dafa am benn soox bu ñu leen sànni ba tax mu mel ni ñu xabtal di rayee def lu ne. parce que li mosuñu ko gis Sénégal bi dafa tàng daal. na waar daal da ngay dox sax di tiit. dem ñu jógee Linguère. lii bu ñu jógee Linguère daal di tëj rek ba suba. après mu jeex. ci yeneen cas. après mu jeex quoi. ay lii. xëy <laughs> na waar daal. ay te jërëjëf ba suba. merci Mouhamed. Hmm? ana waa Fulé. dafa paan après nga ko. ah sama oto bi dafa paan. <laughs>